coalition bi mooy coalition les serviteurs euh, bokk ci mouvement bi di serviteur bokk ci yeneen mouvement dañoo engagé wu ci élection législative falum ndawi réew yi ndawi réew mi ñu fas yéene cee dugg jouer ci benn rôle bu am importance marqué ko def ci loo xamante ne kenn mësu ko def ci élection législative yi loolu nag étape bi ci njëkk mooy nga waxtaan ak sénégalais yi waxtaan ak presse bi waxtaan ak sénégalais ñu xam sa projet xam sa yéene xam ne tamit lan nga bëgg lan mooy sa objectif kon mën naa ne su amee objet wu mm, jàkkaarloo presse bi mën naa ne loolu mooy objet bi mooy waxtaan ak sénégalais yi ci ñu xam ñu lan moo ñu tax a jóg ak it lan mooy suñu yéene rawatina fii ci département de Mbacké nga xam ne grenier électoral la base électorale bu am doole la ci Sénégal di représenter lu bëri ci réew mi ci plan économique ci plan religieux ak tamit ci plan social kon loolu moom moo war waral jàkkaar jàkkaarloo bi lan moo tax coalition les serviteurs lan mooy suñu projet li nga xamante ne moom mooy suñu projet mooy dañoo xool situation Sénégal ni mu bindoo réew mi fi mu toll jamono ci nga xam ne fii ne nii rek bi ñu waaj a dugg léegi ci salle bi ñu ngi annoncé benn détenu boo xam ne dafa dee ci loxo police pour le moment la la version bi am jamono ji nga xam ne kenn démentir ko démentir ko mooy torture maanaam métital moo ko rey ngeen xam ne kon démocratie sénégalaise dafa dellu ginnaaw bu baax a baax chaque jour ñi ngi am ñi ngi dégg wala ñuy gis ay xoqatal jaay doole néewal doole démocratie Sénégal di dellu ginnaaw bu baax ñun les serviteurs ñu bokk ci ñi nga xam ne dañoo jàpp ne démocratie bu néewee doole rek c'est parce que loi yi dañoo néew doole te loi bu amul bu jaarul yoon rek c'est parce que l'assemblée deful liggéeyam te kenn mënul wax assemblée waxoo député kon député boobu nag ñun moom moom lañ bëgg indi sénégalais député boo xam ne Macky Sall lu indi loi wax ci terrorisme ku ne xam ne ne la loi sur le terrorisme bi nga xamante ne après événement mars yi lañ ko lañ ko voté bu fa opposition nekkoon majorité wala ñi fa nekk bu fekkonte ne nee ko xoolul lu neex Macky Sall rek loi boobu du jàll. parce que loi boobu tey jii moo tax képp ko bëgg a manifester te autorisé wuñ la ko ñu ma laa fekk sa biir sa buntu kër barricade la loolu loi boobu moo ko renforcer te leer luñ ko sénégalais yu bari. loi boobu tamit moo indi jii képp ko jàppate ci manifestation ñu mën laa jàppee flagrant délit tëj la tëj bu gaaw. ak yeneen ak yeneen muy dellu ginnaaw yoo xamante ne démocratie sénégalaise daf ko dellu ginnaaw ngir ay loi bon yoo xam ne mi ngi ci réew mi. loolu mën nañ mën naa ne bokk na ci li waral coalition les serviteurs bëgg indi ay ndaw yu bees ci assemblée nationale waaye tamit bokk na ci li nga xamante ne waral na it coalition les serviteurs nga xamante ne Pape Papa Djibril Fall moo ko jiite bokk na ci li ko waral mooy demande boo xamante ne Sénégal yu bëri yàgg nañ ko demandé Papa Djibril Fall naan ko dañu bëgg nga teewal ñu assemblée nationale li ngay wax ci télé ak ci rajo yi bëgg nañ mu weesu fi fi nga koy waxee fii nii mu egg ci mm, assemblée nationale boo xam ne da ngay gën a am plus de légitimité ñu lay déglu gën a bari li ngay wax it mu gën a am doole. nga xamante ne da daan toog lu yàgg nit ñi di ko envoyé ay message di ko envoyé ay vidéo di ko ñaan ngir mu def politique kon loolu tamit bokk na ci li li waral coalition bi juddu mooy sàkk askan wi la sàkk askan wi ñoo bëgg ku mel ne Papa Djibril Fall di leen représenté assemblée nationale ak ñi mel ne moom ñëpp kon ñaar yi mën naa ne moom moo waral coalition les serviteurs dugg ci ci langue politique bi xëy na situation réew mi su ma ci doon wax dinañ fi yàgg lool te yéen itam lu ci bëri bëri xam ngeen ko moo tax pour détailler ci lu bëree bari xëy na mën na ko bañ a jar léegi nag loolu bu amee constat boobu su amee mbooleen ku bëgg Sénégal ak ku bëgg réew mi jag benn yitte rek ngay am mooy nan la ñuy def ba lii changé nan la ñuy def ba li fi nekk changé ñun nag loolu mooy li nga xamante ne moom moo ñu moom moo tax a jug ah li nga xamante nag moom mooy euh, ndawu réew ñu di ko wax député dafa doon koo xam ne rôle am dafa am importance trop ndax xëy na boo ko jëlee individuellement nga ber ko moom dong mën naa bañ def lu bëri waaye bu fekkente ne moom lim lim gëm dafa da koo bokk ak ñu bëri gëm loolu maanaam bu boobaa euh, assemblée wala député day am rôle am solo ma joxe ci misaal rek li loi bii nga xamante ne moom mooy araamal góor jigéen bu fekkoon ne député yi d'accord nañ ci. maanaam boo wees nañ ko bu yàgg tey jii Sénégal képp ku fi dóor góor jigéen bu ñu la jàppee crime lay teg sa kaw nga xam ne képp ku defee ne député amul amul pouvoir yaa ngi nax sa bopp député brin almet la maanaam boo ko beree moom dong mën naa bañ a bëri doole de waaye boo ko boolee ki moromam loo bëgg a tàll mën na koo tàll kon député boo koy boo koy euh, fal da ngay fexe ba falandoo ci yu bëri yu baaxandoo coalition les serviteurs nag ñun rafet nañ jot ci ne lim ci tànn ba ba jox leen ko jàpp nañ ne bu ngeen boolee yëpp ngeen falandoo leen di ngeen am almet bu dëgër boo xam ne lépp lu leen neexut moo koy defaan ndax ci profil yooyu ñun ñi di wax ak yéen doomu daara lañ nekkoon ci daara jàng alxuraan ba mokkal bind kaamil ay yooni yooni yoon jàngal ay nit ba ñu mokkal alxuraan jàng téere Sëriñ Tuubaa yi leen ko ay nit yamuñ ci ñu jàng ñu jàng français jàngal ko suñu bopp dem ba am bac dem université ba tey jii Gaston Berger ñu ngi fay euh, weccoo suñu xam-xam ak ñeneen nit naka loon tamit yamuñ ci ñu dem entreprendre ndax kat dañoo gëm ne ñun doomi Bawol lañ te Bawol Bawol kenn xam ko ñu tàllal loxo ñu dem entreprendre créer suñu entreprise bopp ba tey yàlla defal ñu sutura profil yu mel noonu nag bari na lool ci coalition les serviteurs nga xam ne li ñuy wax doomu daara ñun doomu daara pur lañ ndax bu dee ci wàllu alxuraan ba fii ne nii ñu toog di waxtaan ak yéen alxuraan mi ngi suñu dënn nga xam ne kaamil alxuraan fu ci nit ubbi ñu taat boo boo waxee aaya ñu mottali la ko nga xamante ne loolu noonu maanaam lu nekk la ci ñun loo xamante ne ñu ngi koy wéyee tax nag ñu engagé wu jàpp ne war nañu mën a représenter correctement la coalition les serviteurs nekk un bon député. li tax it ñu war a vo vo euh, waa askanu Touba rawatina parce que ñun foofu la ñu waxee Touba ak Mbacké département de Mbacké li tax ñu war a tànn coalition les serviteurs tamit bokk na ci ne maanaam bu ngeen xoolee coalition yi fi nekk yëpp ñi ñi laaj baat yi bu dee ci wàllum euh, APR muy pour part au pouvoir ñoom li tax ma jàpp ne waree su leen tànn mooy leeralaguñ Sénégalais seen digganteeg loi nguur jigéen bii nga xam ne mi ngi ci taabal ci waxuñ Sénégal yi ci bopp nit ñi nekk nekk nañu fi presque dix ans mosuñoo proposé benn loi bu dooleel daara wala bu reconnaître daara wala bu ko jéem a joyanti jéemuñ ca def dara nañ ko bàyyi woon noonu lañ ko bàyyee ña fa nekk ñu nekk système ba ku ci génn jàng ba mokkal boo demul doon am sëriñ tara yàq wala nga doon ku jàngalewaat alxuraan wala nga dem jéema a sa bopp kere euh, jéem a ambulant wala nga jéem a commerce ñett yi bu ko defut daanaka mën naa ne sa sa jafe-jafe day bëri lool moo tax ñu ci baree bëri seen wàllum économie di jafe ndax boo paree pour nga am loo def day jafe loolu nag li ko waral mooy état bi daf leen a seetaan naka noonu tamit li tax ma jàpp ne war a su leen tànn mooy seen diggante ak troisième mandat leer la guñ ko sénégalais yi wax guñ dara sénégalais yi ci troisième mandat ndax dama jàpp ne nit boo ñëwee dama koy misaal tout toujours beneen coalition bi nga xam ne suñu góor gu tedd googu gu baax googu moo ko jiite wax dëgg dañoo jël turam di ko di ko comme campagne waaye ku ne xam ne ne laa Wade amatul sax jot Sénégal yàlla def na li mu war a dund dund na ko nañ ko bàyyi mu reposé ci jàmm ñu bàyyi turam bi ñu jël di ko campagne di ko naxee waa Touba parce que xam nañ ne Touba Touba amuñ sago ci Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade nag yéen waa Touba képp koo ci sànni aw kàddu aw kàddu xamal ne nax nañ la maanaam Abdoulaye Wade amul kenn ku benn lenn benn dogal bu mu amati Sénégal moom yàlla dimbal na ko dund na li mu war a dund mi ngi France nañ ko ñaanal saa bu ñu xëyee di ko bu ñu jullee fajar ba pare di ko tuddaale ci ñaan yi ngir yàlla gën ko may wér waaye nañ maanaam képp koo ko voté na nga xam ne dañoo jël ak photom rek naxee la ko bu dee beneen coalition bi ñu wax dëgg yàlla ki ko jiite jàmbaral lool ku ñu naw la koo xamante ne maanaam gisuma Sénégal koo ko gën a intègre amul benn nit boo xamante ne mën nañ laa tëkkaleeg moom ci integrité nga daaneel ko boo boo bu la gën a intégré da ngeen di yam mu yàgg résister Abdoulaye Macky Sall yàgg xeex ñëpp xam ngorom ñëpp xam li mu li mu daj ngir Sénégal nga xam ne li gën a mën a yàq nit sax tout accusé nañ la ko ngir yaa daaneel la te ba léegi jaayoo sa ngoro kooku nit gënu koo wér waaye nag moom boppam la mën a assuré bu fekkonte ne moom moo dem bu boobaa képp ku ko sànni aw kàddu euh, saw saw xob man même boo farul boo watul serviteur yi mën nga ko votel loolu benn la rek parce que euh, ñëpp a bokk euh, li ñaan sotti def ci la. na nag am na yu bari yu ñu wax ci coalition bi rawatina njiit ndax dañuy wax ne jaan moom soo soo bëggee mucc da dagg bopp bi rek comme coalition les serviteurs Papa Djibril Fall mooy tête bi xëy na am na yeneen profil yu ci nekk waaye comme moom mooy tête bi bu gars yi daggee bopp bi rek ñu des ñëpp dañuy lor waale. loolu moo tax moom ñu bëgg koo dagg boppam ngir ñeneen des ñu yóbbaale leen looloo waral ñu yàq deram di ko sosal sos yooyu nag dinaa ci indi ay leeral bi ci njëkk mooy li ñu wax ci digganteem naan dafa dafa opposé wu ak Ousmane Sonko loolu may leeral Sénégalais yi ne leen Papa Djibril Fall ku ko ku toog ak moom waxtaan 5 minutes boo génnee boo déggee ku naan dafa contre Sonko da ngay reer ak jàll te xam ne kii yëgule xaw Papa Djibril Fall ci ñi bokk na ci ñi gën a fonk Ousmane Sonko gën koo respecté man ñeme naa ko wax ci fii publiquement parce que avant muy engagé wu ci politique yàgg naa taxaw di ko défendre di wax ci moom lu rafet nit nag mënoo ko estimer fonk ko respecté ko ba benn bis nga nekk politicien rek daal ne kii melatul ni meloon koo xam papa papa Djibril xam ne loolu du waxam. xëy na nag moom léeg mu def sorti yoo xam ne mënees na ko interprété waxe ko noo xam ne xëy na moom waxewu ko noonu waaye diggante ma Ousmane Sonko maanaam dara lu rut estime fonk ak nawel ku dégg kàddu léegi ci moom nga xam ne ñun dañoo ñun dañoo respecté Ousmane Sonko. parce que coalition les serviteurs kenn du ko mës a dégg muy wax dara lu ñaaw ci ci ci Ousmane Sonko loolu ku ko dégg rek bu boobaa da nga am mbetteel parce que ñun loolu suñu principe Ousmane Sonko buñ ko doo buñ ko bu ñu waxal ci moom rafet duñu wax ci moom lu ñaaw parce que dañoo xam fi mu indi politique gu Sénégal rawatina jeunesse bi ni mu leen sensibiliser ñu ci bare bare ñu am fitu tey dugg ci politique loolu lu waay ñàkk far far far far far mën nga koo koo nangul te xam ne du la wàññi dara ñaara bi foofu ma def ci benn révélation boo ne dama ci attirer attention sénégalais ñu bañ a tàbbi ci jeu jeu pouvoir bi ci diggante Papa Djibril ak ak ak euh, euh, Sonko xëy na presse laa waxee moo tax révélation yi bëri duma ko mun def waaye ma leeral nit ñi rek ne dafa am ñoo xamante ne depuis Papa Djibril commencé di politique ba léegi dañoo am benn ci tiitaange bu leen dugg mooy lan mooy gis nañ Papa Djibril Fall ni mu amee xolu jeunesse bi ni mu amee doole lool ci ci jeunesse bi ni ko jeunesse jeunesse bu bëgg bëri bëggee ak. ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ni ko jeunesse bu bëri bëggee nga xam ne jeunesse bi daanaka ku ci Ousmane Sonko convaincre Papa Djibril Fall dina la con dina la convaincre ku ci Papa Djibril Fall convaincre it Ousmane Sonko dina la convaincre ñi nga xamante ne ñoom yàqkat yi du ma seen tur bi ñu gisee loolu ñoom nekkul sax ci législatif yi ñoom 2024 la ñuy préparé ñu ne ñaar ñii bu leen bàyyee ñu am doole màgg ba 2024 xaw ma lan mooy am de waaye kenn ki mën naa jàppale keneen ki bu boobaa ñoom kenn mënta jaamaarloo ak ñoom ndax loo am doole doole doole doole Papa Djibril Fall ak Ousmane Sonko bokk am mbir di ko xeex yow moom pour nga jaamaarloo ak ñoom dina jafe lool. ndax fii ci Touba ñoom dañ fee jaaxle lool te gis nañ ne kii di Papa Djibril Fall daf fee tàmbalee am doole lool. murid yi xol bi ñu cofeel ni ñu doon am ci Abdoulaye dañu di ko am ci moom bëgg ko ñoom ñu di ko gis parce que ñoom information yi am yéen amu leen ko dañuy am ay rapport di am lépp xam kan moo fi tàmbalee am doole kan mooy màgg kan mooy jug. ñu gis jeune leader yi nga xam ne ñoom ñoo ne ci coalition bi fii ci département Mbacké ñoo xam ne lii ci kanamee tuuti bu ñu ko bàyyee bu màggee jafe-jafe na am te bu ñu màggee bu ñu àndee ak ak ak Sonko maanaam kenn du leen mën a gañee rawatina fii di Touba léegi nag lii ñuy def mooy nañ fexe ba Papa Diouf Fall ak Sonko ñu doon ay noon yu mag yoo xam ne fu ñu toll ñi ngi tojatee bopp su ko defee ñoom seen am du ma sa am kon li may ñaax serviteurs yi mooy bu ci kenn wax lu ñaaw ñëlee ñëlee tamit buñ buñ tombé mukk ci piège bi sa xëy na sa njiit di ko bëgg bëgg goo xam ne doo am ci moom sagoo waaye tamit dañuy wax ne maanaam euh, noon bu am xel moo tane xarit bu dof nit di ko bëgg ba yàqal ko kon loolu xëy na euh, révélation yi foofu laa ci mën a yem li ñu doon wax tamit ci affaire coowal parrainage bi damay leeral sénégalais ñu naan am Papa Djibril Fall pio Macky Sall la ndax la lu tax mu jàll parrainage foofu tamit tontu bi ma ciy indi mooy ñaari tontu ci indi d' abord damay njëkk jaar exemple ci Ousmane Sonko parce que man politique bu am bu ma ci amul référence Ousmane Sonko kenn du sama référence donte ne yàggul ci politique gaa waaye man ku ma yàgg a topp la yàgg gis ci moom yàgg a xool ci moom ay ay ay ay dix 2019 bi mu jàll parrainage ku ne xam ne ne mosul dem élection ay moyens yu néew la am waaye pourtant ñëw na jàll parrainage normal lan moo tax néewuñ Ousmane Sonko comme jàll na parrainage rek Macky Sall moo ko jàppale te booba Malick Gakou mi ngi fi woon mi ngi ci woon.

benn Papa Djibril Fall ay parrainage moom kese moo ko dajale daf dafa am lu mu ci dajale lu tolloog ay 15 pour cent am coalition yeneen ñaari coalition yoo xam ne benn bi demoon na ba DGE ba déposé caution ba yóbbu ay parrainage am nga xam ne moom déposé rek moo ko desee man mii maa daje ñoom DGE ñu waxtaan xam ne kat bu ñu boolee ñaari coalition yi moo gën ndax boobu ñun suñu parrainage matagul ñoom ñu ñëw indi seen parrainage boole ko ñun yi jotoon am ak beneen coalition bi kese moo dem am li nga xamante ne moom mooy mille 53000 parrainage demewut noonu Papa Diouf Fall dafa am lu mu am ci parrainage yi am yeneen coalition lu mu ci am ñu boole ko dem yóbbu ko. troisième bi li tax mu jàll parrainage mooy équipe bu Papa Diouf dafa am ay informaticiens yi ci nekkoon yoo xam ne yàlla dafa leen a may ci wàllum informatique man mii suñu borom boole woon nañu si ñu doon traité données yi boo jàngul science de données bu boo amul ay ñu xerañ ci wàllum euh, données boo demee parrainage lañ lay téye. kon lii mooy secret bi tax ñu ñu jàll parrainage amul laneen lu ci rax li ñu wax ci financement tamit Papa Diouf Fall amul financement buñ ko jox boo caution bi wax na ko nee na parti MPR ñoom ñoo fay caution bi kon moom joxewul 15 millions yi ñu naan dafa journaliste fa la jële 15 millions ñaareel bi ku xool campagne bi mu démarré ba léegi nga xool li ko topp ci ay oto nga xool meeting yi mu def nga xam ne kii amul ay moyen kon nañu bàyyi naan Macky Sall moom moo nekk ci ginnaaw Papa Diouf Fall loolu yëpp yëpp maanaam sa bopp yëpp sa bopp weesuwul loolu ndax mënoo taxaw ne kii baax na kii moom ah ñun naw nañ ko Papa Diouf Fall oh, loolu la wax gongo ba benn bis mu xëy jël yoonam nga ne ko nga ne ko yow baaxatoo loolu yow sa jëm bopp sax maanaam cohérent woo li ñuy wax cohérent mooy yow sa jëm li ngay wax xel nanguwu ko kon euh, loolu bëggoon naa ko indi ci révélation ci wàll googu noonu xëy na yeneen ni euh, mm, temps bi du ko maye li ñuy wax tamit naan Macky Sall moo ko financé nit ku ñu financé neex naa xam te deuxièmement aussi yaakaar naa Papa Djibril Fall li mu wan Sénégalais nit waru ko xool naan Papa Djibril Fall mii Macky doo ko financé lu tax parce que TFM lay liggéeyee mais bu fekkente ne da nga ne TFM lay liggéeyee Macky Sall moo ko financé waaye léegi kon lu tax nga nangu ne ba mu fa nekkee at yii ku intègre la woon xam parfois man débat bi problème la logique dama dama ciy am jafe-jafe comprendre yow nangu nga ne kii li mu nekk TFM lépp. bi mu défendre Ousmane Sonko ci affaire Adji Sarr ba taxaw wax ci moom wax joo xam ne maanaam waa palais sax dañ ko cee mere te boobu ñu ngi woon TFM waaw léegi jënduñ ko woon nga bàyyi léegi mu politique nga ne dañ ko jënd moo tamit parfois dañu am mbir yoo xamante ne vraiment problème de logique lay lay doon moo tax dama bëgg manipulation yi nit ñi arrêté ko te xam ne amul dara lu ko tax a jóg lu dut ne jeune la bu am avenir boo xam ne coalition bi mu jiite buñ ko bàyyee mu màgg mën naa sonal lool mag yu fi yàgg ñoo xam ne ci système bi lañ bokk parce que ñun tamit li Ousmane Sonko di xeex la ñuy xeex mooy le système Sénégal système bi dafa war a soppeeku te système bi man li ma ci gën a ñor nga xam ne sama combat personnel la mooy su ñuy jànge ñun rawatina daara loolu moom man incha allah man sama combat personnel laa koy def fexe ba daara ñu amaat beneen gëdd amaat beneen reconnaissance ndax mënoo système boo xam ne ay junni junni nit ñoo ciy génne nga bëgg ko multiplier par zéro amul financement boo leen jox amul dara loo leen jox. dama ne. c'est sûr que am na ñoo xamante ne bu suba ba ngoon jot li ñuy xëy mooy fexe ba Pape Djibril Fall ak Sonko nekk ay noon loolu moom c'est sûr man maa ko affirmé léegi nag lan loolu ban interprétation lañ ci mën a am ban intérêt ñoo ko xam mais man dama man interprétation ma ne est-ce que nekkul dañuy bañ ñii bu ëllëgee lu mel ne élection 2024 su ñëwee mën nañ leen sonal ñaar ñi buñ ah, buñ bokkee liggéey ensemble mën nañ leen sonal man maa joxe sama interprétation boobu balaa presse bi di ma génne fii naan man maa wax ne Papa Djibril ak Sonko dañuy liggéey ensemble j'ai pas dit ça dama ne c'est interprétation possible sur les motivations mais ce qui est sûr mooy les diviser veulent les mettre en mal et ils ne pas des ennemis wax population bi nekk entre Touba ak Mbacké di seen par exemple Papa Djibril Fall di leen xamal ne leader coalition les serviteurs à partir de demain vendredi dina nekk ci dëkk bi def ay ziar def ay tournée def ay caravane def ay safante képp koo xamante ne bëgg nga bokk ci caravane bi wala nga bëgg a gis boo boo rapproché wu ci coalition bi incha allah dinañ fexe nga nga am am ak moom jotaay saafoonteeg moom ngeen xam ne seen taalibe la ku Papa Djibril lay wax ne Touba sama Touba la. loolu nag li mu bëgg wax mooy maanaam ci biir xolam la ko def te it toll la bu mu bàyyi xel kon nañ ko jàppale wuy si ko mobiliser bu baax en masse ngir ñëw dajeeg moom incha allah suba.